la jug tapé sur la table pour Ousmane Sonko parce que bu gagné te Sonko bokkul safewul mais Amadou Ba nee na moom bés bu euh, faloo Macky mooy continuer di di di di wéyal liggéey bi. kon day détourné électorat Sénégal ko kay jarul jarul jarul jarul jarul naan bébé xaw ma la mais j'ai pas compris mais non <laughs> <laughs> parce que euh, en fait en fait euh, lii du du du du du du tuteur du yoroo sa tuteur politique quoi. waaw c'est ça. bu ma gagné kii loolu moom mooy. ndeysaan c'est quoi cette réalité scandaleuse. mais pas Moussa. yow am nga quatorze millions de parrain. Mm-hmm. kon kay ku ñëw donc ñaata. waaw quatre millions de parrain. nañ taxaw foofu. am nga am nga 4 millions yu la ñoom seen biir ñu ngi xeexoo euh, fan yi rek euh, jot nañoo coow coow bu metti ñoom seen biir ci liñ wax dëgg laam du dëgg Fatima man dinaa ñëw fii avec des avec avec des preuves à l'appui ah benn responsable politique bu APR hmm. bu doon jëndi parrainage jënd laa la wax de hmm. waaw ñu dóor ko ci doon jënd ay parrainage hmm. ñu ko ci ay koppar gu bari waaw te jotul jotul parrainage ça veut dire pour dire ki nga xamante ne moom responsable politique la nga jékki-jékki rek gis mu ñëw photo ak Amadou Ba ne jox naa la deux cent mille parrain baa jëndul ki la jaay day jaayiwaat keneen de te xam ne doo ko yuuxu fenn waaye nag askan wi toll nañ foo xam ne Pape Moussa kenn mënu leen jënd boo ñëwee indi sa xaalis dañoo koy lekkal ba pare non non pareneel ku leen neex non pare na maanaam am na ay fiche yu da ngay da ngay bind Fatima Ndiaye numéro nangam nangam ñooñu existé wuñ mm-hmm. ñu la def noonu de dëgg la comme que am nga 4 millions de pare kon koo taxawal mm. da ngay jàll au premier tour am déet waaw kon kay bu baax dafa jar du bokk du bokk xeex bi jarul daw kenn bi seen xeex yi tamit jarul Yirim euh, mm. di wax ji bëri bëri bëri bëri mm. nee na bu Ousmane Sonko gañee euh, bokkee gañee premier tour de Ousmane Sonko nag gis nga est-ce dégg wax ji dafa ne dellu si waat moom Yirim mm. nee na Ousmane Sonko bu bokkee day gañee au premier tour kon baa lu lii waral waxam ji lu waral Yirim cohérent wul ci li muy wax man je peux ah. pas comprendre Cheikh parce que comme que moom ma ngay dutee ci koppar te kopparu Sénégal bi moom boo Ousmane Sonko taxawee assemblée wax ci. Mhm. amul insistance bii na leer na 94 yi leer. na 29 milliards u Prodac yi leer moom waxu ci loolu comme que bu Qatar bi moo ko mais moom wax na xëy na li waral muy wax. Mhm. li waral mooy Ousmane Sonko bu bokkee il gagne au premier tour c'est Yérim kii la di. mais bu bu loolu ñoom xam nga loolu ñoom du leen. arrangé loolu ma jàmbal tamit. Mhm. wax na lu ni mel. nee na 2019. après bi waa ji amee 15 pour cent moo tax it way murit yi xaw ma lan daf leen di yàqal. yaa ngi dégg wax ji. Mm-hmm. donc kon ñoom ñuy wax xam nañ li tax ñuy wax. léegi nag yow moom fexe nga ba. Mm-hmm. président Macky ci élection yi ñu génn ñoom ñu ngi am un million xaw ma ñaata euh, d'électeurs. Mm-hmm. te boo bennoo la woon. amul cassure amul rupture amul dara bennoo bokk yaakaar waaye yow bennoo boo xamante ne mam booy tëb na fenêtre. Diouf Sarr ngi fee. Fofana ngay euh, xeex euh, Diouf Sarr ak Fofana ngay xeex. waaw Aliou Guèye hmm? la bokkatul ci yow. kii buñ jonn buñ saw dem na assemblée ba wax. waaw nee na xelam dalatul. waaw. Ah. ci benno bu mel noonu yow nga ne am nga ci. tasaar 4 millions 700. bu ñuy wax 4 millions 700 man maa leen di topp àll yi. Hmm. ku ñëw kii ma additionné. ku ñëw ne ko jox naa la nangam ma additionné ba fii mu toll nii samay calcul ci ñoom li ñu waxagum am na yu ma rëcc nag mais 4 millions 700 Macky Sall mosul am loolu ci élection. mais loolu bu ko Macky. benn bu yàggul dara. Mhm. élection la jógee fii nii 2021. lu metti daan yu metti. 1 million nangam laa am léegi kon fan la jékki-jékki rek bëgg du tic au tac. Mhm. Benno devient mais attends. waaw ah, bu ñu takkee meles nag Pape Moussa. ah meles loolu mën waaw ah, mystique la <laughs> meles. bu ñu ah, takkee meles léegi nag meles boobu noonu xanaa xanaa dañoo wóolu meles bi 25 février. bu dee wóolu meles rek. Mm. demal euh, affronter Sonko. lan la ñu mën a xaar ci ëllëgu Ousmane Sonko ndax ñu ngi jëm procès. mardi mardi. incha comme ni may faral di wax rek. Mm. parce que Fatima. bu ñu fàttali fàttali ko cour lan moo andi tribunal de grande instance ci Dakar. Mm-hmm.